wa kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï war a dox ci diggante Ama Balde ak Modou Lo nan nga gisee ñaari xale yooyu ak seen combat coow li am. waaw làmb la rek parce que làmb yaakaar naa mënu la rëy ba gën a rëy Modou Lo te sotti na mënu la rëy ba gën a rëy yi ki Yékini te dara amul signature yi mënoon naa am fii te dara du am. est-ce que comprendre nga l'essentiel que CNG nag combat bu demee nii dañoo war a anticiper xam nga signature yu leer mën naa am te kenn du fa dem Yékini ak Balla Gaye ba coow la bëree Alioune Sarr daa jëlee responsabilité am ñu def signature bi RTS ñaari mbër yi kese dugg ñu wax li ñuy wax ku ne ñibbi xaj na ñoom mën nañu ko bëggee noonu waaye loolu nekkul dara mais CNG nag ñoom toujours dañuy bàyyi ba benn affaire am ñu soog a teg ay règlement te am na affaire yoo xamante ne nii. da nga war a anticiper jël sa ay responsabilité xam nga signé avenant yu leer nañ signature bu ngeen di ñëw ku ne nangam ngay àndal ku ne nangam ngay àndal xam nga promoteur bi ñu ñu ñu ñu désigné ko mu jël service d'ordre bu dëgër wut place fu nu koy defee foo xamante ne nii ñaari mbër yi kenn du leen jege ñoom du ñu jege wante parce que gis nañu fi Eumeu Sène Balla am na bu mujj bi am na fu nu teg boo xam ne benn yaay baaraas la ñu leen defal kii yor sa micro taxaw fee kii yor sa micro taxaw fee ñuy wax. ku sax mën nga toog sa koñ. te dara amu dara amu mën nañu daje loolu jërul toog sa koñ. bu CNC jëlee responsabilité am promoteur bi jël responsabilité am ñu bëgg signature yi am rek mën nañoo def mille signature te du am benn problème parce que da nga koy teg si yoon mber mu ne booy signé ak moom avenant yi ne ko yow ak bi ak ñaari mber yéenay an bember nga wax ko ko bu nu dikkee nga def barrière yoo xamante ne nii ku ne ci yàgg sa moroom di ngeen def différence lu mat 5 mètres wala 6 mètres ku ne toog ñu jox la micro. kii génne bunt bii buy génn kee génne bunt bee ñu bañ a bokk air bi ñu fi daje ki yow air tel ngay ñëw boo ñëwee ñëw ñu installé la amul taxaw kee bu ñëwee ñu installé ko mu jeex. bañ am benn alto. mu man teg làmb dama koo def ba tàyyi altoppe sax mën naa ñëw mais altoppe yooyu bu police ñëwee bal bu ñu yëngu ñu leen di jàpp di dóor ci kaso gi altoppe yi police rek la ñu ragal dañuy kii rek muy neex nii mais bu CNC jëlee seeni responsabilité amul lu lu ñu lu ñu luñu lu ñu organisé wut fii te day te day nekk mais man ay waxi kalang-kalang nii moom am na ñu bëri ni ñuy wax war nañu koo defee nii coow la fa am toujours maa rek promoteur bi bu jëlee responsabilité am CNC jël responsabilité am ah mbër mi xam ne lisance la joxe xam ne mën nañu ko ci aj cinq ans carrière mën na yàqu ah bu dikkee dina tegg lépp si yoon macha allah mais nan nga gisee ñaari xale yi Modou ak Ama Balde ñi am na ñu ne Ama Balde forme bii ñu ko gisee dafa mel ni parewut ah, xam nga yoo xamante nii am làmb moom journaliste yi moo ko wax wala sportif moo ko wax gaa yi daal seen seen i seen i moom ku ne analyse Sénégal moom xam nga ak làmb xam nga mënoo koo xam te mber mi sumekuwul forma ñaar nga ko mën a xamee mber mi nga nekk di entraîner mber mi bu fekkoon ne ñoom silbalde balde waa Pikine ñoo ne mbër mi nekkul ci forme ah wala ka koy entraîner musculation wala ñu dem ba ca làmb ja ñu sumeku ma xool ci laay mën a wax kii mu ngi ci forma wala nekkul ci forma yeneen yii nuy wax yëpp ay détails la yoo xam ne day andi ay coow te wax dëgg yàlla man maa ngi ñaan rek sama xarit yi reporter yi am na foo xamante ay nit bu nu fi accès nañuy taxaw def li ñu war a def parce que mbër moo xamante ay nii sabadoor la sol ah wax dëgg yàlla mënoo xam fila eh, mënoo fila fil la sol kooku wax dëgg mënoo gis forme nag booy xam am na forme wala amul forma wax dëgg yàlla man moom ñaari mbër yëpp wax dëggas naa yàlla yàlla dogal na nii laa leen di gis ci làmb ji ku ne ci yaakaar naa benn yoon laa la ma sa noyu yoruma sa numéro mais ay mber lañu yoo xamante ni ay jàmbaar lañu ay mber yu am la lañu ci bëre parce que ku xam Modou Lo xool ko ba muy départ ba mu agsi automatiquement moom li mu war a def ci làmb yëpp def na ko pour ñu naaw ko li mu war a def yëpp def na ko lépp wane na ko fi ci làmb ci njàmbaar ci yar ci tegin ci teg làmbam ci yoon Ama Balde it ku ne xool na xool tey tafaatin ak Malick Niang doy nañu rek ci def nga jàlloore doy nañu ci mën nga daan ku ne ci xam-xam ak ci fit ak ci lépp waaw en tout cas daal combat bu neex boo xamante ne nii ñaari mbër ku ne ci am nga avantage parce que bu fekkee ni Modou Lo bi defa diire dix minutes ñu miitaa ji xam naa ne wax dëgg yàlla du yomb ci ama dootul waaw parce que Modou Lo dafa mën a xeex te loxo bi diis na te xam naa fi muy xeex te am na condition physique mën na bëre est-ce que comprendre nga ma waaw combat yi mu bëree yëpp rek yi mu bëree ñi mu tolloon yëpp Ama Baldé it wax dëgg yàlla de du bëree temps bu toll noonu te Ama Baldé mën ngaa mën a bëre mën a xeex dàq koo bëre dàq koo xeex mu dikk accéléré la patam patamee la jaxase ruube la ba li nga doon li nga mënoon sax du feeñ daan la looloo tax Ama Baldé moom xam naa ne man fi ma ko yaakaare ci première une minute ba deux minutes foofu moom xam naa ne li mu li mu li mu fi ma ko bu bu rombee foofu moom ma commencé ñàkk yaakaar. amatul sens foofu. non xaw ma amul sens ci ci sama xel. maanaam bu combat bi diire xalaatee bi man bugguma ko si. parce que boo xoolee wax dëgg yàlla moom buy bëree dafa ñime. dafa ñime dafa ñime yomb de fermi gardam ragalut ku tekkee ku xam dafa xaw a garaaw. parce que Modou Lo poids léger la mais loxo poids lourd la yor. Mm-hmm. am na force de frappe te fi muy door day door ci point toujours te dafa ñime. Mm-hmm. te day xool te am na gauche am na droite mm-hmm. xam nga. comprendre nga la waaw dégg naa mais Ama ni muy def nii est-ce que warul jox cër moodloo pour mën koo daan. amaa jox na cër moodloo Lo de. Ama jox na cër Modou Lo de. koy fu mu ko fekk jaxase ko wax. Ama noonu lay même noonu muy def noonu di ruube moom ni lay bëree de. Mm-hmm. Ama la muy def mooy jéemu da organiser mën ngaa dikk ak sa technique ak sa xam-xam ak. sa mën a break sa mën a xeex mais géem boppam bu dikkee li mu mën la lay sotti li mu mën nag toujours ma boo ko mën da résister rek mu jaar sa kaw jàll loolu tax combat bi cinquante cinquante la koo ci ne moo mën rek da ngaa farak moom man nag bu ma sàññoon man en tant que koo xamante ne nii li mu xam ci ñaari mbër yi lay wax ak xam-xamu làmb mbër yi nag moom am na ñoo xamante ne nii bu nu waxee dana ci war a xool vidéo jàngat ci mhm. jàngat ci li nuy wax mhm. parce que man ku def ay analyse ci làmb suñu làmba ci suñu mber di bëre mhm. damay jël vidéo yi xoolaat ko xool xoolaat ko jàng même bu ma la waree tontu damay xool li nga wax ba noppi soog la mën a tontu waaye nit jóge fee rek ne la diw li mu leen wax nangam nangam nga rëccateeku di wax di tooñ nit loolu du yëfi nit aussi nit da ngay nekk nit nekk gor man du ma faral benn mber même tafaatin lu ma ko faral faral faral du ko fennal du teye man may wax dëgg li nga xam ne moom laa xam ci la am na yoo xamante ni nag comme suñu mbër la dina am yooyu di nga ma fiyewu tee ko xam nga mais di nga défendre mbër mi mais man du def analyse ci sama ay mber parce que li nu yor ak li nu mën man xam naa ko mais dañu koy denc pour mu nekk suñu mbir man bu ma sañoon mbër yi ma yor kuy analyser nga jox ñale favor bañ a xam ci ñun daara loo nuy waxal ñun ñu tee li nu li nu xam ak li nu mën ba suuru làmb ja mu nekk surprise ci mber mi man loolu moo ma génnal te it képp kuy ànd ak mber loolu moo nekk sa rôle ngay wax man nga analyse ci yeneen mber mais man sama mber lu nu wax ci moom rek d'accord naa boo gisee ma leen di tontu mm-hmm. xam nga ku ne Eumeu Sène a man moo dàq bëre moo dàq xeex bu ma sañoon Eumeu seen gém loolu mm-hmm. bu ma sañoon moom ci boppam la ñuy wax moom mu gém ko xalaate ko noonu fooge ko noonu ba suuru làmb ja est-ce que comprendre parce que yaakaar naa Eumeu Sène am na fu mu joge am na fu mu jóge avant muy bëre ak Bombardier te dañu koo gémloo woon ne yaa te loolu la foogoon aller retour yëpp loolu <laughs> am na fu mu jóge rek fu mu foogoon ne day war a mën a dik nax borom jàll am na foo xamante nii bu fa tegee combat bi wala mu foog ko ko wallaay wal asim dina dikk ne bu ma sañoon sama combat bi mel ni sama première sama deuxième combat beeg Modou Lo wallaay wal asim te maa la wax lii. macha allah am na solo. père yaakaar naa li duuf ci nag bi xajul ci cin bi yow rek euh, toog ak yow xam naa bu ñu doon def fii deux jours li ngay wax ci làmb du jeex mais yaakaar naa ni jotaay yi du jeex dañuy jëlaat rek beneen jotaay incha allah ñëw waxtaan ak yow ci làmb ak ci leneen li nga xamante ni mu ngi ci sa biir bopp yaakaar naa lépp li ne sa bopp ci làmb bari na. xajul ci benn émission du def lu dul euh, jox la nga tàggoo euh, sa dernier mot. waaw sama dernier mot de maa ngi jéglu ñëpp maa ngi jéglu Eumeu Sène ak ñi mu àndat bu dee am na lu ma wax ci ñoom loo xamante nii lu leen naqari la ak ñi koy waxal maa ngi koy jéglu parce que ñoom wax dëgg yàlla Eumeu Sène yar laa ko xamal ak teggin te boo xoolee combat ak tafaatin wax dëgg yàlla ni ñu koy defee ñëpp a koy rafetlu parce que wane na ne ay professionnel lañu wane na ne lay daan mbër mi ca biir géew bale mais pas ay wax ju ñaaw pas ay nga manqué de nit respect ak yooyu vraiment man loolu dama ko ci remercier di remercier it Landiang mii nga xamante ne nii moo ko yor. parce que it nag nit da ngay waxal nit ki dégg parce que ba mu yoree Eumeu Sène ba léegi avancement la nu xam ci moom yar la nu xam gisuñu leen lu débordé te moom it wax yu rafet lay wax bu génnee di wax ku ne dina xam ne kii responsable la aussi kii war na mën a ànd ak champion ba mu nekk champion parce que fulaak fayda lay wax yeneen yëpp mu mafie wu du tooñ nit du effacé nit parce que dama ko seetlu ci nit parce que loolu moo am solo parce que lépp li yëpp li muy li muy bëri bëri coow li bëri mbir yi ñooy mayante xaalis te lu yàgg-yàgg ñoom ñooy àndaat di tuddantey doom di demantey ngente di demlante yëpp bàyyi bëre nanu gem ne rek liggéey la ku ne ciig nag di nga défendre sa gox waaye man amul leen loo xamante ne nii tey loolu may naqari ci làmbala la wala lu may wax nit kii lu ñaaw wala lu may jël intention wax ko ci nit te nag bu ñu taxawee tey bëgg a tuutal sa mber ah wala mu liggéey def palmarèsam bu riis bu rafet ah ay nit jóge fee bëgg ko tilimal te ñu doon ñoo xamante ne nii bu nu waxee dañuy gëm ne xam-xam la ñuy waxee gém ne am na nu daayoo bu nu am ci làmb day laajit ña nga xam ne ñoo ànd ak mbër mi ñu gën défendre mbër mi daanaka loolu rek moom la mais ñun daa am nu nu yare ñun yarewu du nu ñàkk tegin yarewu nu nu ñàkk yar te duñu ko def te heure bu nu demee ba nar ko def ci làmb ñun ñu bàyyi ko tege ko nale parce que dañu am ay kilifa am ay doom am ay rak ñoo xam ne bu nu ñu waxee lu nu naqari ñoom mën na da leen di metti mën nañu rey seen bopp te bëgguñu leen a tooñ kon nag ñu ngi leen di jaajëfal di gërëm ñëpp ci làmb di ñaanalit ñi gàmmu ji su su sunu xarit Asis Njaay ñu koy ñaanal li mu def ci gàmmu gi yëpp comme ay teraanga li mu def Tuuba ak lépp yàlla def ko ay xeewal def ko ci senegaal def ko ci njabootam def ko ci it ay waajuram yi génn mu fekk leen ci biir bàmmeel yara defal leen ci tawfiix xari leen aljana moom it yàlla yokkal ko mariage bi mu duggit mu nekk bu bees yàlla def ndaw si dikk wax dëgg yàlla dikk nekk njiglaayam ba noppi a ah, li mu ci yaakaar lépp mu am ko dikk rek mel ni Miss Ndiaye mi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla sunu xarit la sunu doom la sunu rakk la sunu lépp la doon nit ku baax koo xamante ne nii ñun ñuy ànd ak Aziz dañu koy témoin wax dëgg yàlla bu kee di ko mel ni moom rek maanaam Aziz léppam jàmm lay doon di ñaanal Baye Ndiaye di ñaanal Sénégal yëpp jërëjëf. ñu wax ci nu ñu war a traité suuf si bu dee suuf soo xamante ne mësuñ ci bay te mu mës a recevoir engrais de fond bépp xeetu engrais de fond damay natt ñaari bouchon wu Green OK yu yemo 15 ba 18 ko ndox. ma pulvériser ci kaw suuf si nga xamante ne mësuñ ci bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laata ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mës nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppaleen ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si